Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb ay maqaama yàllaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaam yalaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli no ay maqaam yalaw auzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabi lumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa salama tasliman onze billah bisimilah inni wala yàlla salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa internet yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen chaîne bi nga xamante ne mooy Salam Vision ñu amaan mbégte tey dellusiwaat ci suñu beneen numéro ci seen jotaay bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro tey nag fi ñu ñëw wax dëgg yàlla duñ fi gan ndax bi ñu fi xamee ak tey daanaka léegi mu bëgg a laaj fukki at ak lu tawra bi waaye ni ñu def rek mooy dañuy daal nuyoonteeg moom siyaaranteeg moom daal ko ni salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi. <laughs> waaleykum salaam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. <laughs> allahumma salli ala sa muhammadin faatihi lima ughliqa wal xaatimi lima sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa siraatikal mustaqiim wa ala <laughs> ñu ngi day mbokk jullit yi ñi nga xam te ñu biir Sénégal nekk bitim réew fépp soo xam te nekk na si biir réew ñu ne li wax na tey ñëwoon nañ pour leeral tuuti ci li nga xamante ni moom mooy liggéey tur boobu nga xamante nit ñi xamee nañ ni ko ñu borom kéemtaanu secret yi mm-hmm. secret yi nag bëri na la soo ma ragalee ma xamal la mm-hmm. mu ne soo ma ragalee sax dina la jox wërsëg kon lii lépp mu ngi tënk ci jaamu yàlla mm-hmm. ak xam-xam le maanaam ku ne say pax yooyu muy jeexee loolu yëpp mhm. ba nga xam lenn kii ci wàllum kéemtaanu secret yooyu. Mhm. nga tax tey incha allah rabi ñu leeral tuuti ci mbokk taal yi nga xamante ni. Mhm. ñoo ay garab surtout garab yi ci njëkk li ñu njëkk ci waxtaan peut-être mu ngi nekk garab ci Fatou Diop Diop. nga xamante ni 2012 ba tey ñu ngi koy liggéey. dëgg yàlla suñuy waajur Cheikh Mouhamadou Habibou Touré. ñu ne Cheikh Mouhamadou Touré am na yàlla yërëm leen xaaral leen àjjana ñoom barke tax yi i barke seen i wërsëg seen i surbu seen i lépp mhm. waa Saalum lañ mhm. waa Dofaan Kaolack mhm. am na ay yu bëri yoo xam ne doom bi yóbbu nañu ko jàngee nañu ko d'accord ndax alxuraan moom lépp muy si ma far naa amee ci kitaab mi seen bàyyiwul dara yàlla tuddee ko am na alxuraan nag bu ñu jàngee si daara yi leen ni ñu yàlla wërsëgal si wàllu xam-xam neen na xam-xam boobu noonu bokk na ci ñu war a ñëw pour leeral ci ñun Kemtaanu Seck yi ñuy liggéeyee. Mhm. parce que liggéey bi ñuy liggéey dafa jëm ci tradipraticien. ñu defal mhm. ay garab. surtout waaye dafa jëm si côté boo xamante ni aussi. xam mhm. naa tumuraanke ci jamono. alxuraan moom mooy lépp. alxuraan moom mooy tax nit di dund moom mooy tax nit di wërsëg wërsëgu moom mooy tax nit di am kaaraange moom mooy tax nit di yokk ci saa ak ci baati. ak yeneen ay xaatu yoo xamante ne amaa dañu leen di jënd taam muy toll may ko yoo xam ne ay xeetu talsam la ak yooyu. Mhm. kon bi pour wàllu mbooloo booy rek wërsëg ak dugg fan ak yooyu yëpp koy def day tijji doomu aadama comme jaar bi ni muy def. léeg-léeg nag am na ñoo xamante ne ay takk chaîne dañu xaw a nekk seen i problème. moo mhm. tax lépp lu liggéey lu nekk même jigéen ñi sax lam yi. Mm-hmm. ay wax chaîne ñun lam nañu liggéeyal lam bi mm-hmm. lam bi moom mi si yooyu lay def ki mënta takk chaîne takk jaar amaana mën a am possibilité ko takk la mm-hmm. lam si jëm boppam bu juddoo juróomi at juróom benn at ngay gis ñu commencé takk lam boobu dañ koy defar diggante ji ni bi problème mu ko mën a yore takk téere dafa nekk seen i problème mun a takk wala nga takk mu dagg mais bu dee lam la dina am sécurité ba pare dina mën a yàgg ci yow dina rafet dañ ciy liggéey ay xaatim yoo xam ne dañ koy def ci biir lam bi chaîne ak jaar mm-hmm. yooyu yëpp boo ko général yi boo ko tënkee. Mm-hmm. danay duggaat ci biir borom cëmtaanu sekk yooyu ngay dégg détaillé dèjà détaillé nañ keroog ci kaw joni joni mhm. wax nañ ci affaire yi ndomb bi jaaro bi ak chaîne bi wax si lam bi ndomb bi dinañ ci ñëw mhm. ak beneen produit boo xam ne ñu koy liggéey tuddee ko antichoc cuuraay saytaan ak xam lu jinde yi nga xamante ni moom mhm. beneen côté la dox si wàllum cat mbiru saytaane ay liggéey ay rabab yi liggéey dafa bëri ci ay façon xeetu liggéey bu nekk na ci côté góor yi ci côté jigéen yi ci côté ba ci musicien tey gis nga tey politique bi nekk nii li bëgg mooy ñi nga yàlla méngoo na seen i wërsëg da nga xam ne ñoom ñoo war a gën nekk ci pouvoir bi ëllëg mm-hmm. parce que pouvoir du Sénégal am na pouvoir bu ko gën a kawe mm-hmm. daayira bii nga xamante ñoom président yi ñoom moom lañ dirigé daayira bi suuf lii lañ koy tuddee mm-hmm. daayiratul amaliya bi am na ñeneen ñoo xamante ni yàlla may na leen xam-xam moo xam say ay sëriñ moo xam si ay fëddaan moo xam si rawaan wala jinne ñuy dirigé pouvoir boo xamante ni mu ëpp doole bii ñu nekk nii kon pouvoir bi ñu nekk nii mënuñu wax ne daayira bi suuf a ndaw la tuuti la donte nag lu tuuti li si ngay jaaree ba yegg si lu mat mais am na beneen daayira boo xam ne moo fës bii ñu nekk ni kon politiciens yi ak lépp lu ñu mën di yëngatu mm-hmm. dañ xam ne am na ñoo xam te yàlla may na leen si cër si mm-hmm. maqaama si daraje si wilaya ñu leen di faree kaw moo tax ñuy ñaan sutura ak tawfeex am mm-hmm. si Sénégal moo ñu nañ ko loolu kenn mënu ko fi yàq politiciens yi nekkal ay milliards milliards politiciens yi nekk biir Sénégal mënuñ si dëkk bi dara si kàttanu yow yaa sa doo ko fekkee. macha allah xam ah, mais sëñ bi est-ce que yow fi mu ne yow yeewi askan fi nga dëkk nii yeewi askan wi dafay dafay duma Macky duma yu métti est-ce que ne amoo yoo xam ne yaa ngémboon ci pet fi mu parce que sëñ man fukki fan juróom a ngi nii yoo xam maa nga bëgg a jot ci yow mu tëma fi nii. nekk benn li ñu naan tombale wala a jaar Ousmane Ousmane Sonko boobu ndeysaan ñu ngi ñaanal taw fe mhm. ñu ñaanal képp koo xamante ni mhm. na ci ginnaaw xataa mhm. président Macky ñu ngi koy ñaanal taw fe ñoom ñoom biir Sénégal bi li ñuy amal njëriñ bi mooy affaire askan wi moo ñu intéressé surtout ni ñuy fajee doomu aadama yi ñu gis ay résultats ñu suñu toogee assemblée léegi ñu nekk biir assemblée ñàkk fa nekk yëpp li ñu bëgg mooy loo xam dina jëriñ askan wi ndax yonit yàlla moomu yàlla dafa wàccoon na ko damay wàccee naa la ngir nga nekk yërmaande ñeel xeet bi amarsa naa ki laa rahmatan dina alam ne boobu sax boo koy xool tay jamono maanaam mbooloo dafa tënk sax kuy jullit ak ku dul jullit mm-hmm. hatta mënaantaan bi toox bi gën a tuuti sax ci la bokk mm-hmm. kon politiciens yi day ñëw taxaw taxawaay yi ñu darajaay ñooñu donte seen maqaama yegg sax si wilaaya ba yegg ak ay ay ay nubuwa mhm. mais yegg nañ si maqaama yàlla def leen kilifa mhm. qul allahumma maalikal mulki tuuti mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tuzillu man tashaa bi yadikal khayr innaka 'alaa kulli shay'in qadiir mhm. kon daraja boobu leen ngeen mën a jëlee image boobu ngeen mën a jox mais di caagin dañaa yor dundinu doomu aadama dundinu doomu aadama zahiran wa baatinan yàlla moo ko yor léegi nag ci la booleeg ay sëriñ yoo xam ne dañu la mën a ñaanal ñu tàggat la teg la ci njub mm-hmm. région ni siraatal mustaqiim loolu xewal la mm-hmm. naataange boobu noonu barke boobu ak wërsëg boobu yàlla du ko jëlee mm-hmm. politicien mënu ko yàq moo tax ñaari kuréel yëpp booy xool daanaka dafa mel ni diggante yëwoot ak nasaraan mu sab si biir bay na zaay laay laay ulaay laay laay ulaay daanaka léegi da ngay xool nga ne ñii fariñ ci daayira bi fariñ ci daayira bi fariñ ci kuréel bi fariñ léegi yahud yi dañ taxawal ne waxaati yahud laysatil nasara ala shay waxaati nasara laysatil yahud ala shay yahud yi dañ ne nasaraan nekk ñu si dara ne yahud yi nekk yi ngay gis rek ba gis ministère yi yooyu yëpp dafay am mooy sëriñ si sax léeg-léeg yàlla leen di nattoo yu mel ni am solo mooy tegu si yoon siraatal mustaqim surtout fexe góorgóorlu laa la sa xol bi mm-hmm. parce que yonent bi def na boo sant lu néew doo sant doomu aadama yi doo sant yàlla mhm. kon yàlla indil fi ñi pour ñu xiiroo te ñaayoo waaw yàlla li mu doomu aadama yi mooy ñu jël jëriñante suñu bopp ñuy ñëw suñu biir kon bu ko defee affaire bi du ci affaire Ousmane Sonko tey wala du ci affaire Macky Sall ak ñoom mbiru Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. mbiru Sénégal boobu nag dafa am loo xam ne daf ko fondé maanaam dafa am loo xam ne mag ñi dañ ko fee teg mm-hmm. teg ko fi yàlla nag joxe leen wërsëg bu tonn ak wala ko dem Mawlana Cheikh de Temps la Ibrahima Niass Baye de Landu tey wala ko dem ni Sëñ Touba tey liñ defar si diine ji liñ defar si si si l'islam loolu amul benn politicien bu ko mën a garanti defal ko nit am na ñoo xam ne tey seen i wërsëg yaakaaruñ ko si politicien ñu ngi dund jaar nañ si mag yi yàlla suturaal leen ñu defar leen sant leen ñu nekk ay milliardaire di liggéey mhm. nañ feexe jéem a teg suñuy tànk ci côté yooyu noonu mhm. li gën ci réew mi ëllëg nag muy xam président 2024 lañ doon 2035 yooyu bi yàlla def mhm. yu mel noonu mais li am solo si doomu aadama ma xam nag si ay nit ay boromu personnalité boromu daraja am ñoo xam ne si côté nguuri Macky Sall lañ am ñoo xam ne si côté ñi nga xam ne ñooy opposant bi loolu dafa jiitu programme sax surtout Sonko di def affaire politique mhm. bay toll fii wala Macky di jël réew mi mhm. dama leeral la mhm. tey depuis avant Macky Sall di jël réew mi barke Cheikh Tidiane billaahi lasi laa ilaaha illaa hu am na jour gént naa ko moom Macky Sall Abdoulaye Wade dama ko gént mu nuuru si biir géej lii de su fekkee nettali naa ko doomu aadama tey bu mu fi yàlla bu mu fi suba fekk na gént naa Macky Sall ñëw lan ngaa moom ma balaa muy jël pouvoir yi. lu lu baax la gént boobu. maa ngi koy nett doon nit tey tey bu doon lu ma intéressé la si wàllum pouvoir. wala si mm-hmm. wàllum pour nit ñëw seet si ma. konoon tat génne naa loolu bu yàgg ba ci mbiru Adji Sarr bi ngay toog di dégg sax. Mm-hmm. man am na sama nit ñoo xam ne envoyé naa leen audio. yàgg na xam ne côté mën nañu supprimer audio bi. Mm-hmm. ni mu ma ñëwee woon dañ jinne benn policier buy xeexee benn xale bu jigéen mais xale bu jigéen bi si biir xale bu jigéen bi nekkul nit simple jinne la. Mhm. booy dem teewaawal pël nii apik si Kër Masar. Mhm. fa la bi ñëwalee am ñoo xam man def naa leen audio samay xale. xam naa ne mën naa supprimer leen audio yi. d'accord avant Covid bi bi ñu dugg yi noonu laa géntee ay policiers yu biir Sénégal di xeex xeex bu métti. Mhm. defuñ si benn fan ñaari fan ñu déclaré Covid bi. am na ci bëri yoo xam ne dinañuy ñëwal suñuy temps suñuy jamono wala léeg-léeg bañ a dugg ci détail yu média yi. Hmm. day tax ñu toogaale ak loolu. fekk lu bëri dañ koy gis. Hmm. di toogaate la fekk lu bëri dañ koy toog dañ koy gis. misaal hmm. bi jënt naa ko jur ñëw mu tàng la ngaamu xaw ma lenn lu xeetoo pour kuy ànd ak Macky Sall sax xaw ma ko. too xam te ni tey tey tey tey. maa ngi jiwaay ji ñu ne ñoom sama benn xarit bu ma xam moom xam na Lamine Sall. mais kooku li jëm ci wàllum l'islam lu jëm ci wàllu tarixa ay ak fayda bi si la ñuy waxtaan sama xarit la mais dañ liggéey ak Alioune Sall mhm. sama xarit la ñu seq lu jëm si affaire politique wax dëgg yàlla seq ñu yooyu mais nag léegi la yàlla may la nit mhm. nga toog nga gis loolu moom mbiru yàlla la mhm. waaw loolu nekk benn intermédiaire boo xam ne da nga koy ut ci politicien pour mu ñëw di seet si laa pour mel noonu ñun li ñu war a dundee si wàllu zahir ak baatin loolu yàlla mu ñu koy wasigal am na ay mbër yu ñu war a mën a xam am na ay musiciens ñu war a mën a xam yeneen jàmbur ñu ko ñëw di dox seen i soxla yàlla di faj seen i mbir ci sutura ci xam-xam loolu képp képp ku fi nekk rek ñu dañuy nga xam te ñi ngay xalaat wala di ko jéem biir Sénégal hmm. dañ bëgg loolu yàlla teg si tànk hmm. sëriñ si ñaan si yàlla def si sutura hmm. amul ku si gagné ku si perte bu nekkee si lu baax lu baax loolu ñëpp lay ñeel bu ñu nekkee safaan bi ñëpp ko si mujjee sonn rek kon dañuy ñaan yàlla yàlla def tawfiq yàlla na ko yàlla boole incha allah rabbi Cheikh waxtaan bi neex na am na solo leer na waaye waxtu bi mi ngi xëccu na jëm ci jeex waaye mënu moon a ñàkk baña laaj la benn laaj bi ndax dama fi gis ay xeetu xaatim yoo xamante ni daanaka li moom mat na miiru néeg bi xeet yoo xamante ni daal wax dëgg yàlla euh, bu weesoo ndekete li nga xam ne moo jëm ci wàllu faj ay xeeti jàngoro Cheikh Ousmane tam ci weneen wàll woo xam ne muy ñaan yàlla ak wéetal yàlla suñu borom ngir doomu aadama tam da ciy yëngu ba tax xeetu xaatim yi xanaa nga di ko bind. waa xaatim bi de dafa tombeel rek waruñu woon pour jël intention sax pour jël ko. mais dafa nekk benn colis boo xam te nii waxee wax dëgg yàlla États-Unis a mu ngi koy xayma tax dinañ ko wane. lu mel ni ci mbokku taale bi gis ko. benn tur la boo xam ne bind nañ ko douze mille fois. Mhm. day fal doomu aadama. Mhm. day tijji wërsëgu doomu aadama day maye daraja day maye mbooloo day maye wërsëg. Mhm. day fajaale nit. parce que benn tur la boo xam ne dafa jàpp fukki saar alxuraan yoo xam ne mu ngi si biir temps mooy ko ñu détaillé. mais tur la boo xamante ni boo ko jëlee di ko sang aussi dañ ko war a wér ligne boobu. ok am na nag koo xam ne bindal nañ ko ko nii ba pare. Mhm. bi ñu tudd turam bi ñu doon mais bi incha allah moom ndomb beeg yooyu yëpp dañ koy liggéey ndomb bi nag. Mhm. ama ñi nga xam ne dañuy dox si wàllum daraja wala politique. Mhm. maanaam ragal ay accident ak yu mel noonu. si si. dafa xeet xeetu kaaraange la daal. kaaraange la waaw surtout liggéeyal naa ak ñi nekk bitim réew mi faj duñ jeex. Mm-hmm. ndomb bi day guddal faru doomu aadama day parce que alxuraan boo bu nekk rek dafay am zahir am baatin. Mm-hmm. ndomb bi ni muy tijjee ni muy car e, protéger doomu aadama noonu la koy tijjee si côté wërsëgam. Mm-hmm. parce que wërsëgu doomu ak mbiru saytaan mbiru rabat yooyu day fekk ay musiba yu nekk sa yaram bi te nag jafe-jafe yooyu lay dindi. da lay ci wàllum kaaraange di jëm ci wàllum takk der takk der yi toog di jël nit ñi di leen manipulé di leen sonal ñoom amuñu intention boobu ñun yàlla moo tëralee noonu ay mm-hmm. am ñu bëri ñu nekk Europe ñoo xam ne dañu koy jànkuwanteel yu mel noonu. si loolu man def naa ko ay nit ñoo xam ne am naa seen i garante. Mm-hmm. yàlla ñëw ak seen i mbir ay mbiram mooy comme si wàllum takk der yi kon yi wala lu jëm si wàllum accident bi mel noonu. ba si mm-hmm. wàllu tool ak yooyu yëpp da koy si sama waajur bu góor moo ko doon liggéey Cheikh Mouhamadou Habib Touré. Mhm. balaa yàlla def li ñuy def parce que le 7 novembre bu ci la décédé. mais avant loolu góorgóorlu nañ. Mhm. ba jëflante ak moom ci daal ba mu jàngal ko xaatim bi mu ngi tudd miina. ndomb bi ci jëm boppam ñu koy liggéey Sénégal bari nañ ñun ñu ngi si xaatimu ndomb miina la tudd. Mhm. te léegi lim lim yooyu nga xam ne moom lañ koy bindee fi ne lim yooyu dafa mel kon benn bu ci ne ay code secret la yoo xamante ne gëstu ko indi parce que dégg na la sànq ngay wax naan 16000 nangam ayatul nga mhm, am na ko. macha allah li ko. parce du leer nga wax mooy mooy wéetal yàlla. alhamdulilah sama dina nekk bi nag dafa si wax wala ci melokaan mhm. kon ndongo bi bu ñu koy liggéey dafa am ay tomb yu ci nekk yoo xam ne boo koy tomb am na yoo xam te ni turu malaaka am na yoo xam te ni ay turu jinne na yoo xam ne ay turu roxaan la mhm. am na yoo xam te turu wëli yàlla yi gën a mag ci wëli yàlla yi mhm. am na yoo xam te ni yooyu ngay indi daayira par daayira tomb par tomb mhm. am na yoo xamante ni juróomi waxtu julli yi moom ngay indi. am na nga xamante ni Makka baytul maqdis baytul maamur mhm. nga xamante mooy doj yi gën a mag yi nekk biir biir Makka. Mhm. soo koy liggéey am na ñoo xam ne foofu ñoom ngay indi. am na ñoo xam ne ngir ngay indi Malik Saafi mhm. Abu Hanifa am na am na am na sax juróom-ñaari tur rongaan yi nga xam te ni sax Sëñ Tuubaa mu leen di wax si benn kii ne ku mokkal mhm. doo doo doo doo balaa ngay dee da ngay gis sa kër àjjana ay fa dat ba yaay loo satt fa yaay loo xatta ba yaay loo kank yaay ay mhm. na si ne ku leen di mokkal yooyu dafay bokkaale si ni ñuy liggéeyaale affaire bi mhm. bismillahi rahmaani rahim bi am na si côté boo xam dañ ko fay liggéey alhamdulillahi rabbil am na côté boo xam ne ñëw kon donc bi tomb yooyu ñuy tomb yi tomb noonu boo ko résumé tey boo xoolee moom moo tax yàlla téye asamaan bi téye suuf waaw ah, parce que defe naa ne ba la déggee bu baax a baax li nga wax mooy basmala moom fu mu dugg euh, euh, sant suñu borom bi mu alhamdulilah fatihatul kitab bi daal di ñëw defe naa ne foofu daanaka lu ca a boo mm-hmm. mm-hmm. na beneen côté wax dañ koy liggéey près de douze mille fois ay sangat la am ay xaatim yu ñuy àndal moom it dañ koy liggéey day fànn day tijji wërsëgu doomu aadama ñu bëri dañ xeet ci waxin nag mm-hmm. am na sax beneen bi nga xamante ni doo liggéey bi si naanama leen kese hmm. am na boo xamante ni sekk yoo xam ne bisimilahi muhammad rahmaani muhammad rahim muhammad ngay gudde am na ñu ñu la ko war a gudde xam naa ne xeetu diinu bisimilahi boobu yaa ngi koy door a dégg te maa ngi lay dañu si bàyyi loolu am na dafay jàllal bi wërsëgu doomu aadama dafay def fatu akbar hmm. léegi nga xam ne lépp looy ñaan lu nekk da ngay jaar ci yonent yàlla moom lii nag léegi ngay yurde bisimilah rahmaani direct moom ci moom ngay jëm direct rek rahmaani Muhammad réew moom noonu ngay liggéey na ñoo secret yi moom lañ àndaloon ci waxtaan bi doyalu waaye xam naa ni fi mu ne ñu koy xaar ci biti bëri na waxtu yàlla waxtu wi xot nañu waaye li ma jaaxal Cheikh bi ban at nga ñëw Ndakaaru waaw fii moom wax dëgg yàlla daanaka boo xoolee yàgg nañ fi ñëw yàgg ñu fi ñëw noonu. Mhm. mais li jiitu ñu fi ñëw nag suñu suñu tur jiitu nañu fi. loolu la loolu tax ma laaj question bi ma laaj. parce que man bi ma la xamee ba léegi Ndakaaru ba tey. koñ bi ma la déggee woon. Mm. bi nga ñëwee Ndakaaru koñ boobu nga wàcc fi nga dëkk te ba tey gii fi laa la fekkaat. Mm. te loolu mi ngi bëgg am fukki at ak lu toll. waaw xam nga loolu moom des fois am na ay xeetu barab yoo xamante ni ngay jëflante si tur yàlla ba yàlla yankamala la fi nga war a ne. Mm. waaw ok barab boo gis bu nekk rek dina am zaahir dina am baatin. maanaam jëmmoon rek indi fi sa bopp. Euh, am na lu dogal bu ngay tegtal la yooyu ay tegtal la. yeneen yi am kenn ku toog a toog a. day ñëw ne day day nekk am yeneen wala barab sàngam. ak doy waar <laughs> mais yeneen yi ku kuy nekk ku nekk yàlla nga leen missionné ci heure bi ci waxtu bi ci barab bi. bàyyi wax na ko sax. sama jamono mooy sama makkaan sama makkaan mooy sama. sama jamono kon jamono bi nekk rek. ak makkaan bi nga xamante ni fan nga war a liggéeyee ak nit ñi nga war a liggéeyee ak heure ba nga war a liggéeyee. surtout. bu ko defee fii parce que booy xool 2017 ba tey ñu ngi fi. Mhm. wala nit a def presque juróomi loolu faaw ma indi ko beneen jotaay laa koy indi loolu émission la spéciale laa koy jëlal parce que li tax Cheikh Ousmane ñeme wér da ñeme tëju ak ñeme bind loolu faaw ñu waxtaan ca beneen débat lañ koy daal di def incha allah lan mooy doon tey ji message bi nga xam ne war nga ko lancer askanu Sénégal rawatina suñu mbokk ci bitim réew. ak kàddu bi ñu doon yëkkati jotaay bi yu mujj yi du dara lu dul sama xarit yi nga xam te ne yàlla boole na ma ak ñoom. mooy mhm. jëflante ak ñoom zahir ak ci baatin. te mhm. am na ñoo xam te ni tey jii si wàllum jëflante li ñuy jëflante dem nañ ba weesu fi mu ne nii. Mhm. problème diggante ay taal ak sëriñ. dëgg la samay xarit yoo xam jaaram boobu mu la wax noonu waajuram bu jigéen laa xamoon depuis Diourbel bi mooy nekk si bu daara ji. xam nga yàgg na. daara bu tey de wax dëgg yàlla kooku noonu ay nii nii nii nii mm-hmm. yàlla def nag dañuy jëflante ak maam waajuram bu jigéen amaana mën naan teggin wala xat-xat jëm mayiwul ngay toog yi dugg si détail yooyu. Mm-hmm. boobu ba tey moom mën naa ne ni mu koy xëy di dégg si jëm boppam sax amaana waajuram yi jigéen moom mu koy xëy di dégg. ndeysaan ko yàlla boole na leen. moom muy foofu yàlla yàlla barkeel. ay wërsëg la. amiin bi jaay Seydina Mouhamed. defal moom bokk nañ si ñi nga xam ne dañuy représenté ko. daal di képp kuy tóo numéro téléphone incha allah rabbi mhm. jokkoo ñu. Mhm. danañ la jox ñu suñu numéro. Mhm. soo joxee si ñun danañ la jox numéro téléphone am. muy Espagne képp kuy yittewu mën a tollu incha allah loolu moom bu baax la mhm. ba nga xamee na presque juróomi at mu ngi koy bëgg a mat léegi mhm. moom garab bi macha allah bokk na ci ñu dimbale ko si noonu ñu mën di nekk tur tudd tur réew mën nañu tudd fa tur waaye réew yu bëri tey am na mhm. nit ñoo xam la chaîne leader di sant leen gërëm leen ñaanal leen yàlla sama borom sama borom taxawu leen ñoom itam mboolem seeni i bëgg ak seen yéene yal na yàlla sama borom jàppandalal lépp ci dara yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam barke bu mag ñu baax nga xam ne ñoo ŋànk suñu réew ba xiirtal ñu ci lii kon ñu jox leen dig daje incha allah rabbi taala ci suñu beneen jutaayu xam-xam ak seen jutaay bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro di leen jaajëfal bu baax a baax tawfiq ak taysiir yàlla ñu ko yàlla boole defal dara yi yonent yàlla ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw